منصور منصور ممالك زرناك زرناك يا منصور يا سندي يا بهجة الدين يا مأوى المساكين الحاج منصور سمالك أمن الكئيب ومير الناس كلهم سنگ بے منبع الخير يا بشرى السلاطيني طول الجلالة صبرا قلبكم سلما آه، يا موجب القوم سود والبيادين كوي وخرمني أعني بي نجل شيخ القوم مالكنا ناوي جهالتي غلا بالشياطين الحاج منصور سمالك لنت جنابا ونفس الطب يا وزري ملاطف البيد حقا وسوادين سيد القوم لولاك لولاك كن نبكي فقد والدكم يا حاملا لنا كل الأماكن لا تنسى لا تنسى يا جحجح طالبكم بدعوة الخير إني كنت ذا هوني توغلن توتي bismi rahimi maa ngi door ci marsi sidri si door wax lu mel ni bi door ci ay wolof laa ko tibbe amin bismi rahimi maa ngi door ci marsi sidri si محمل بدار جوعي ولا فلاك وتبي أما ما إلى سماي دال جل سماي دال ما ما إلى تامك من دم يبي بارتي واي دوك يلا بنك يا نقول Mansour Amady Gor. di nger mi moo di ger semmi ñi dal ci moom di gor te gestu amul naqar mawɗo konon suura muñel tebul di wut alal di jal te ku tawat aajo fajal man bul di mer alxaaji Mansour si maari na ñépp ne ni gar mi jangoogu Mansour Maodo ko noon soora muñal bul di wut alal di jal ku tawataajo fajal yow sooro bul di jàpp mer Mansoor képp ku yàlla woon soloom du ko wutal fi nun moroom usman la tegu Mansoor waxtu si maa képp ko yàlla wan solo doo ko wutal moroom nga ni usma leeral mbiram ci moom man nga yee gaani borom kaala yaa ngoogu borom baatin baa ngoogu sës rëkk ca baayama ngoogu Mansour Malick radiyallahu taala waa Italie bii toog waa Italie bii toog sayyidul qawmi Mansour a jeexal xeeti muñ jaaxal na bépp xol bu bañ Ousmane lu jotegu bu génnee diine lay defar alaaji Maalik moo la jur mooy sene jaay te moo yar daf ma ko may moo la xamal si kar mat nga door samp kër amo ci mané moroom do den ci deram juro ya ko sopp sa ya lewet ba mel ngeen na njarul gi fàdd waay kër mi garay dam waay te wasu naararanto xanaa ni cell rek tey sikar la ilaha illallah نفاس فاس دم خير ناس ترم رفتنا تفراس مغوك شال حاجي منصور سماري ما يلا سكي فرطهم ne bi ñëw dogali sunnaam Mansuur doy foo fay maam na yàlla neex ne la woyal te ñoom bu sëri Mansuur si wax ni maa ko baax soo wax ni maa kewe su ko du wax ni maa kewe عين من نثرت قوما زرم ما كذب ربا لقد كوما زرم ما كذب ربا الميت من زرم ما كذب ربا فكر من صار léegi incha allah. fu baay asma sa dem ab turóob lëkkoog moom fu baay asma sa dem am turóob turu Maodo lëkkoog moom fu dikk ñu ni baay as ni Seydi Mansour dëgg la dëgg la bay asma sa dem am turam la koog fu dig nu ni bay as ni Seydi Mansour fu dig nu ni bay as ni Seydi Mansour fu dig nu ni bay Aziz mi ñu xam mooy ngalam ji soodaan wurus ngalamay piir wa mooy sunu piir Abdul Aziz fonku wa ci ndool te teg ca baayam ya nekk ca moom Haaji Abdul Aziz si maali ñëpp ni ni mama abdoy zunub zeeri ab doy sunub sëriñ ca kaw mama ab doy sunub te góor te tabe mama ab doy sunub yee ak rafet jikko mama ab doy sunub sëriñ ak góor te tabe mama ab doy sunub ak bëgg yonnen ak i setam Mama Abdou Yusuf Lo gorse i gorse Mama Abdou Yusuf Lo seen i loxo yi ca kaw soppe da baax Mama Abdou Yusuf Lo seen i loxo yi ca kaw soppe dabba mama sunubuse ko gore tataɓe ko roɓete jik mama abdoy sunubuse yulu lolba meni keri noy lolba meni keri sawaje beri jeri mama abdoy sunubuseri ku ko doogit alhaaji loxo ca kaw ñuulul lool ba mel ni këriñ te nooy lool ba mel waay sa waaje bari njëriñ mama doy sunu bu sayri kii ku ko doogit alhaaji abdu ba mel ni këriñ te nooy lool ba mel waaw sunu waaje bari njëriñ mama abdoy sunu bu sëriñ ku xootale mu seeti la ku deele mu jaare la kii ku ko doogit alhaaji abdu yaay waay bismillaahi maa ngi door ci buur bi mat bi tudd samat lam yalit walam yulat Mama Abdoy Zuno Buserin. Kiku Kodogit Al Haji Abdu Yai. Wajidi Julli Tiji Mustafa mi soppeem koko xaritam kokoy baayu bintu Rasul Mama Abdoy Zuno Buserin. ku ko dogit mu waawa ma xaam doy sunu wayit ma tàmbalee di way ku baax te xam ni mooy aja ma tàmbalee di way ku baax ba xam waje ma tàmbalee di way ku baax te ñépp loxo ca kaw ma tàmbalee di way ku baax te ñépp ah waaju baax mama abdoy sunu bu ak gerte gi te moo jokkula ey sama turandooy waaju baax mama abdoy sunub sama turandooy waaju baax mama abdoy sunub Hadi Abdul Sunub may ma jéema way naa ko way ba dee ku baax faw nga yomba way lama ab doy suuna bu sëri Mansoor jéema way ma nay willaay naa ko way ba dee ku faw nga yomba way maam Abdoy sunu bu seyri ku dee mu jaale la ki ko doogit mu jokkooya maam Abdoy sunu bu seyri naa ko jéema way man day tey ma way ba dee ku baax faw nga yomba way mama abdoy sunu bi seere ni di kii ku ko doogit seni loxo yi ca kaw mama abdoy محسن لقيتك وماما تنتبي واخلن لي وقتك وماما بدويزون الحادي بدويزون بزرين ماما بدويزون دوخينا واسن منصور نانكو قتوليت مشراكمون يا في وطن ميزون بزرين ku ko dogit mu jox ku la du xëy na woo sëñ Mansoor nan ko xatuli busraaku mu te yaab i wutu daba mi suulu bi seyri ku ko dogit mu jox ku la moo ne keroog ma fi jógee ñëpp ni kii dootu fi am ngir jikkoom yu selle yee mamar doy sunu bu seyri mam ko ko dogit mu jokku ko mama abdoy sunu bu seyri ni kii ko ko dogit mu jokku ko دبخ دبخ دبخ دوغي تموجو كله هذا عبد الزون بسير دوغي تموجو هذا عبد تمت سير دبخ باخ تمت سير لا بير نيت نيتي تنوي لولبا كل نار ناكو جيما ويكو باخ faw yamba way moo nan ko way ba dee maam Abdoul sunu bu ko ko dogit mu alaaji abdu yaay sunu bu seri waaw waaw cum cum la jëm